ginnaaw bi ñu sante borom bi subhanahu wa taala ñi ngi sant mbokk yi ci xarakatul falaax rawatina eh, shabab lujnatu shabab ci kóoluteef gi ñu am ci boole ñu seen dawra bi ngir ñu man cee jàngat ak suñuy mbokk jullit lenn lu nga xamante ni aju ne ci suñ mbiru diine mu nekk rek fàttalante ñu war a waxtaane thème bu nga xamante ne bu ama am solo la ndax thème bi ñi mu aju moo tax mu am solo ndax dafa aju ci ay ndaw te xam ngeen ne ndaw mooy li ëpp solo ci fi a umriya ci waxtu bu nga xamante ne nit ki dina ko dund ci eh, ak dundam mooy waxtu wi nga xamante ne ci la nit ki di amee kàttan ci la nit ki di amee doole ci lay mën a jariñ xeetam jariñ ba mu ko war a jariñ moo tax ñi nga xam ne dañuy yéwénal yépp li leen yitteel mooy defar seeni société dañuy jox importance bu mag jeunesse ba parce que bu fekkente ne jeunesse ba jub nañ jaar bañ fi ñu war a jaar boobaa société boobu dina avancé waaye ñi nga xam ne dañoo bëgg a yàq itam ñépp seen objectif ki ñuy viser mooy xale yi ndax xam nañ ne xale yi bu ñu fexee ba euh, yàqal leen fexe ba jaaruñu ci yoon wañu war a jaar boobaa euh, xeet woowa du mën a te avancer moo tax l'islam jox yitte ju am solo age euh, boobu nga xamante ne ci la nit kiy toll te mooy mu toll ci jeunesse am mu toll ci dooleem ndax yowmal qiyaama xam ngeen ne bokk na ci li ñuy laaj nit ki danañ ko laaj an umrihi fii ma afna dundam gi fan la ko jeexale waaye yemuñ ci dund gi eh, boobu loolu jeunesse bi duggaale na ci waaye dañ koy laajaat question boo xam ne moom ci ak ndawam rek lay lay lay lay aju wa an shababihi fii ma abla dañ ko laaj ak ndawam fan la ko paase ndax dafa paase ndawam rek ci di football di di baali di forek ak a caaxaan wala daf ko paase ci jéema Euh, jaar ci yoon wi nga xam ne moom la so borom bi subhanahu wa bëgg di jaamu yàlla amit teggin di sàkku xam-xam mën a jariñ boppam mën a jariñ famem mën a jariñ xeetam bu fekkente ne euh, ku mujj ki la day moom bu boobaa euh, xéewal bu mag a mag dina ko am ndax xam ngeen ne yonent bi wax nañu ne bokk na ci juróom ñi nga xamante ne bu yowmal qiyaame dinañ leen keral bu fekkente ne booba ker dem na ba ñàkk ba ñëpp soxla ku leen keral naaj bu tàng jër bokk na ci ñee ñuy keral shabun nashaa fi taatillah xale bu nga xamante ne moom euh, maanaam dafa yaroo ci topp borom bi subhanahu wa taala loolu nag kon day wane am solo goo xamante ne euh, marxala bi ngeen toll te mooy jeunesse am na ko solo ku nekk war a am conscience ci loolu xam am solo goo xam ne am na ko solo ngir nga mën a jariñ sa sa sa xeet ci waxtu woowu Euh, thème bi nag nekkut ci wax ci am solo koo xamante ne loolu am na ko solo wala euh, xasaais euh, yi nga xam ne jagloo yi nga xamante ne marxala boobu am na ko loolu duñ ci xam naa ne incha allah am na waxtaan yoo xamante ne dina ci aju mais li ñuy waxtaane tey mooy tudd lenn ci jumtukaay yi nga xamante ne mën naa dimbali chab bi ba nga xamante ne ci ab yaram moo xam moom dafa yare wala moom ci boppam dafa bëgg a yaru parce que yar tarbiya am na tarbiya zaatiya am na tarbiya boo xamante ne keneen la koy defal tarbiya bi nga xamante ne dañ ko dañ la koy defal kooku ñaare ki nekk xale bu ndaw lañ koy defal ak tëfl waaye ki dem ba commencé mage kooku moom li ëpp solo ci ab yaram moom moo koy defal boppam mbokk yi euh, yar bi ëpp solo bu nga xamante ne nit ki war na ko yittewoo mooy ak tarbiya diiniya ak tarbiya diiniya maanaam l'éducation religieuse wala l'éducation spirituelle leneen noo ko ci mën a tuddee mooy daal ñu yar nit ki ba nga xamante ne dañ koy jokkale ak boromam alayhi salaam eh, eh, borom azza wa jal jokkale ko ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fexe ba nga xamante ne dina tegu ci siraatal mustaqim di jaamu borom bi subhanahu wa taala nam ko war a jaame jàpp diineem nam ko war a jàppee loolu mooy yar bi ëpp solo boo xamante ne nii war nañ koo yar nit yar boobu bu jiituwut ci jeune bi rek beneen yar bu yar bu ñëwaat rek du mën a dugg ndax boobu mooy fondement bi bu fekkente ne fondement bi dëgërul wala fondement amu fa kenn mënut a tabax tey ñu ngi fii ci eh, quatrième étage bu fekkonte ne taxaw defaluñ fondement bu dëgër dëgër ci ci ci suuf gi boobaa kenn du mën a tabax ba si fii naka noonu itam bépp yar bu nga xamante ne dañ caa génne diine yar boobu mënatut a baax loolu moo tax kon boo xoolee lu bëree bëri ci suñu jeunesse bi tey li tax ñu sànku réer euh, dugg ci ay njaaxum li ko waral mooy bañ leen di yar yar bañ leen doon yar dañ ci génne diine dañ ne ñoom euh, réew la boo xam ne laïcité la te laïcité yoonu diine nekku ci diine ma nga ci jàkka ja rek ak nit ki bu toogee ci biir këram waaye li nekk espace public bi moom diine yoonam nekku ci loolu ñoom seen bopp dem nañ ba gis ne njuumte la yeneen réew yi ko adopté woon yépp itam dem nañ ba gis ne njuumte la nit ki boo ko yarul yarul diine dara mënta baax loolu moo tax kon li ëpp solo loo xamante ne moom la ñuy yar nit ki mooy ñëw yar ko ci yarub diine ndax euh, loolu ci lay xame li tax mu ñëw fii ci kaw suuf question bi njëkk bu nga xamante nit ki dana ko laaj surtout jeune bi bu demee ba commencé màgg di laaj man lan laay def fii ci kaw suuf lan mooy sama mission loolu nag yarub diine moo ko mën a tontul borom bi subhanahu wa taala wax ko ne ko wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudoon nit ak jinne dama leen bind ngir ñu jaamu ma kon li la fa indi yow leer na sa bopp mooy ne da nga fay ñëw pour jaamu borom bi subhanahu wa taala ñëwoo fi pour fo ñëwoo fi pour caaxaan afa xasibtum annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turjaun déedéet loolu taxul ñu ñu ñëw fii maanaam jullit dafay am objectif objectif boobu nag li la koy njëkk a may mooy ñu yar la yarub diine te boo amul objectif sa dund doo dem fenn bu fekkee xamoo fi nga jëm dangay ngay tañaxu rek di dem boobaa doo mës a àgg fenn da ngay sonn rek dox ba bëgg a dee te doo àgg fa nga jëm waaye ki nga xamante ne xam na fi mu jëm objectif am leer na ci kanamam boobaa fa mu jëm day yomb ci moom mbokk yi nit ki bu fekkente ne yaruñu ko yarub diine day dem ba jege li nga xamante ne moom mooy bàyyi ma yi bàyyi ma yi ñoom seen àdduna lépp lekk la ak naan ak sëy tëdd nelaw amuñu beneen objectif bu leen tax a jóg bu am solo wooteeg doomu aadama nag nga xam ne moom dafa am ay mbir yu am solo yoo xam ne moo ko fi indi te li ci ëpp solo mooy jaamu borom bi subhanahu waaye bu ñu yarut nit ki yarut diine day mujj dundam mel ne dund bàyyi ma rek walladina kafaru yatamattaun wa yaakuluuna kama taakulul anam ñoom noonu la ñuy def dafa mel ne euh, dunduk bàyyi may lañuy ñuy dund seen plaisir rek lañu xam lépp lu nga xamante ne neex na ci seen bakkan rek danañ ko essayer mbokk yi kon bu ñu bëggee wax nag ci yenn ci jumtukaay yi nga xamante ne day dimbali nit ki ci euh, mu yaru yarub diine ba ci njëkk mooy tafqihu shaab fi umuri diinihi al wasila al ula mooy tafqihu shaab fi umuri diinihi mooy fexe ba jeune bi ñu jàngal ko nag mbiru diineem ba mu xam ko ndax kat mbokk jàng diine ci yi gën a war la yi nga xamante ne ni mënta ñàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne man yuridillahu bi xayran yufaqihu fi diin képp koo xam ne yàlla bëgg na ci yow euh, lu baax daf lay déggloo diine kon liñ ci dégg mooy koo xamante ne déggoo sa diine mooy yàlla nammut ci yow lu baax Euh, bu ñu wax jàng déggloo nit ki diineem nag waxuñu day nekk ab faqih wala mu nekk ab aalim waaye euh, borom xam-xam yi dañoo euh, xàjjatle xam-xam yi ñaari xaaj def ko furuudu ayn ak furuudu kifaaya am loo xamante ne mënee suta jullit bi mën a koo ñàkk jàng fokk mu xam ko loolu nag jeunes yëpp moo xam yow arab ngay jàng moo xam français ngay jàng moo xam leneen looy jàng war ngaa fexe ba li nga xamante ne mënoo koo ñàkk sa diine pour mën a xam euh, nooy taxawale sa diine loolu moom foog nga foog nga jàng ko yeneen xam-xam yi passé loolu nag loolu moom ku ci nekk ak fa nga ca mën a àgg waaye kenn du forcer kenn ne foog nga jàng ko kon mbokk yi pour ñu mën a yar nit ki yarub diine ba war li njëkk ci moyen bu ñuy jëfandikoo mooy jàngal ko diineem jàngal ko li nga xam ne mënu koo ñàkk ci diineem ndax nit ki bu xamul diineem booba ci réer lay nekk te bu nekkee ci réer kenn mënu koo yar ba yar am njariñ ci moom moo tax borom bi subhanahu wa taala waxoon ne wa ma kaana almuminuuna li yanfiroo kaafa fa lawla nafara min kulli firqatin minhum taifa li yatafaqahu fi ddin wa li yundiroo qawmahum ida rajau ilayhim laallahum yaxdaruun loolu mooy li aju ci furuudul kifaaya am na xam yoo xamante ne du ñëpp mën a jóg jàngi ko loolu ñenn ñooy dem jàngi ko bu ñëwee jariñ ci ñeneen yi mooy li nga xam ne bu ko ñenn ñi taxawee mu wàcc ñeneen yi waaye am na nag loo xamante ne moom nit ki fokk mu xam ko pour mën a wéral diineem loolu mënu koo ñàkk ñàkk a xam beneen euh, wasila bi mbokk yi pour mën a am éducation diine boobu noonu mooy tarjumatu tarjamatu taalimi diin ila suluk amal yi fokk ñu yar jeune bi ci li nga xam ne jàng na ko ci diineem mu fexe ba mu bañ a yem rek ci boppam nga xam ne mën na koo tari fu mu toog mën koo jàngale waaye mu mën a fexe ba pratique ko nag ci dundam xam nga bu dee yeneen diine yi da ngay dégg ñu naan di diw pratiquant la diw du pratiquant l'islam nag ñëpp ay pratiquant lañu war a doon fokk li nga jàng ci diine da nga ko war a pratiquer boo ko pratiquer wut nekkul ak jullit parce que gëm-gëm du euh, du ci xol rek lay yem waaye dañ koy gëm ci xol ba noppi mu feeñ nag ci cër yi bu fekkente ne cër yi defut dara bu boobaa sa gëm-gëm boobu amut amut amatul njariñ noonu kon yow murji nga ngay doon moo tax mbokk yi li ëpp solo li loo xamante ne nit ki war na koo jéem a yittewoo mooy lépp lu mu jàng ci diine muy lu wér na ko jéem a jëfe loolu mooy indi nit ki yaru yar bi nga xamante ne moom la eh, eh, yaru ci diine ndax mbokk yi eh, al amal iman maanaam jëf ak ngëm yàlla dañoo lënkaloo mënuñoo séparé woo comme ni nga xamante ne wasila maanaam moyen yi ak objectif yi noonu lañ lënkalaw maanaam nit ki bu amee ay objectif waaye amut moyen pour àgg ci objectif am yooyu booba objectif yi du amati njariñ waaye nit ki bu amoon moyen yu dul jeex ba noppi amut objectif amut fu mu bëgg a dem boobaa itam euh, du du dem fenn moyen yëpp dina tasaaroo ba jeexte du du jariñu moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ñu ci alquran ne wal asr inna al insana la fi xusr illa alladina amanu wa amilu salihat watawaasaw bi xaq watawaasaw bi sabr kon fokk ñu am ngëm yàlla waaye teg ca nag jëfe la nga xamante ne moom lañu moom la ñu gëm mbokk yi ñetteelu moyen bi nga xamante ne itam dina dimbali jeune bi ci mu yaru yarub lislaam te ba ci njëkk mooy yaru diine mooy tanchiatu shaab ala tamassuk bil kitaabi wa sunna mundu nuumati azfaarihi maanaam xale bi ñu fexe ba tënk ko ci alquran ak sunna ndax xam ngeen ne mbokk yi woot woote woote yi bari na ku nekk yaa ngi woote jëmale sa bool ku nekk ne man la ku nekk ne fii la bu fekkente ne jeune bi yaruñu ko ci mu mooy ci alquran ak sunna boobaa ku ñëw di woote rek man nga koo xëcc yóbbaale moo tax bu ngeen gisee woote yi nekk ci réew mi ni baree bari ci li leen di wuyu jeunes yi la parce que dañuy wër diine waaye xamuñu diine ji wër ja nga xamante ne moom lañu war a war a jàpp loolu nag mooy bu ñu leen yaroon ci ñu mooy ci alquran ak sunna boobaa dinañ dinañ euh, mën a xam fan la ñuy teg seen tànk moo tax borom bi subhanahu wax ne wa'tasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu yéen ñëpp mooy leen ci buumu yàlla gi te bu leen tàqaliko buumu yàlla googu firee nañ ko lu bari waaye li ci gën a wér mooy ne mooy alquranul karim ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci xadis bu wér ne Euh, alquran ji buum la boo nga xamante ne benn cat bi borom bi subhanahu wa taala moo ko téyel boppam yor yor beneen cat bi nit ñi kon nag ku jàpp ci beneen cat bi nga xam ne moom lañu yor nit ñi boobaa mucc nga waaye ku bàyyi cat booba noonu boobaa yow dangay dangay da ngay da moo tax ibnu kasir nee na euh, li aaya borom bi subhanahu wa wax ne yaa ayyuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum nee na loolu ndigal la loo xam ne borom bi subhanahu wa taala daf koo jox bépp julit ne bépp mbir boo nga xamante ne wuute ngeen ci ŋaayoo ngeen ci xamu leen lan moo ciy dëgg ak lu ci du dëgg nee na delloo leen ko ci euh, alquran delloo leen ko ci euh, alquran wala ngeen delloo ko sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma xtalaftum fihi min cheyin fa xukmuhu ila allah bépp mbir bu nga xam ne wuute ngeen ci atte ba ma nga ci borom bi subhanahu wa taala kon jullit bu fekkente ne yar nañ ko ci mbiram yépp moo xam yu mag yi la wala yu ndaw yi la lu mu ciy atte woo rek day xool lan la ci alquran wax an lañ la ci sunna wax mu jàpp ca loola boobaa dina mën a am yarub diine bi nga xam ne mooy yarub diine bu bu wér mbokk kon ñu ngi woon ci wasila boobu nga xamante ne mooy al wasila salisa te mooy yar xale yi ci ñu mooy ci alquran ak sunna ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab allah wa sunnata nabii kon bu fekkente ne bëgg nañ xale yi jàpp seen diine dëggantaan fokk ñu rattu leen ci alquran ak sunna waaye bu fekkee dañ leen tënk ci waxu ñeneen wala tënk leen ci ay nit nga xamante ne waxu ñooñu la ñuy jiital ci waxu alquran ak sunna boobaa loolu day indi xalal maanaam euh, dënge ci yar gi nga xamante ne moom lañ leen koy yar beneen ba ñeenteel ba mooy euh, ci wasaayil yi ñuy jëfandikoo itam ngir mën a yar xale yi yarub diine mooy garsul imaani saxiix wal aqidati salima fi qalbi shab mooy xale bi ñu fexe ba ca waxtu wu teel teel ñu jëmbat ci moom ngëm yàlla gu wér ak itam pas-pas boo xamante ne bu set la boo xamante ne du takk dara maanaam du gëm ay pas-pas yu nga xamante ne dafa wuuteek alquran ak sunna du gëm njabar du gëm ay xarfa fuufa du xam du gëm leneen lu nga xamante ne wuute naak pas-pas bu wër bi nga xamante ne moom la euh, l'islam digle ndax kat mbokk yi pas-pas dafa am relation bu baax ak ay jikko nit ki bu pas-pasam wérut ay jikkoom mën naa bañ a wér ay jikkoom mën naa bañ a baax comportement bi muy comportement nit ñi aussi mën naa bañ a baax te lépp la koy waral mooy pas-pas bu nga xamante ne euh, wérut waaye pas-pas bu wérut itam dafay tardeel am réew bari waana nit ñi lu ñuy yàq ci alal yu du jeex ak yu ñuy def yu nga xamante dafay freiner développement te lépp li ko waral mooy pas-pas bu wér bu nga xamante ne euh, bu wérut bu nga xamante ne am nañ ko bo boo gisee tey nit ñi fu nekk ñi ngi daw ku jaaxle yaa ngi daw dem ci jabarkat yi yaa ngi dem ci gisaanekat yi wala yaa ngi jël sa alal di ko def ci lu nga xamante ne jàpp nga ni lii diine la te fekk na du diine yooyu yëpp li ko waral mooy ñàkk yar gu ñu yar jeunes yi ci ñu am pas-pas bu wér pas-pas bu nga xamante ne dafay dëppook pas-pasu l'islam ndax bu ñu leen yarul ci pas bu wér rek dina am ñeneen yu ñëw woo leen ci pas yu nga xamante ne pas-pas yu yu baaxut la te lool bu ñu xoolee sun euh, jeune bi aussi dinañ gis ne euh, pas-pas yu yàq yooyu tasaaroo na lool bu baax a baax ci biir milieu yooyu te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ne kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaanihi nee na képp ku juddu dangay juddu judd ci fitra mooy sa xol day set wicc ci tawxid ngay judd kenn du judduwaale bokkaale waaye ña lay yar ñooy def ci yow bokkaale benn ñu def lay yahud wala ñu def lay nasaraan wala ñu def lay jaamukatu euh, safara wala ñu def la leneen moo tax nit ki buy ñëw xol bu set wicc lay indaale mooy fitrat allah fa aqim wajhaka liddiini xanifa fitrat allah allati fatara annaas alayha la tabdila li xalqillah waaye bu fekkee yar ba nga xam ne moom lañ koy yar ci la euh, fitra boobu di changer benn mu euh, continuer di set euh, nekk ci pastos bu wér wala ñu soppi ko yóbbu ko def ko leneen lu nga xam ne wute naag li nga xam mooy pastos bu wér kon loolu day wane aussi importance bu nga xamante ne am na ko ci ñu jéem a yar xale yi ci li pas bu wér jéem leen a yar aussi ci ñu sàmm pas-pas bu wér bi nga xamante ne am nañ ko ba lépp loo xamante da koy yàq ñu soreet leen ko lépp loo xam da koy yàq ñu sensibiliser leen ci ba ñu xam ne lii wute naa passeport bi wér ba ñu sori ko mbokk yi beneen mbir ba itam te mooy euh, juróomeel ba mooy tansiatu shab ala taxkimi shara fi jamii shuuni yi loolu itam mooyee la jumtukaay la boo xam dañ koy jëfandikoo ngir yar xale bi yarub diine mooy fexe ba ñu nandal ko ci lépp lu muy def lépp lu muy àttewoo mu àttewoo ca diine lépp lu muy def ci mbiru àddunaam mu xool ba xam lan la ci diine wax lam ca wax mu def ko lam ca euh, tere mu bàyyi ko nekkut ne mbokk yi bu ñu nee àttewoo lislaam rek ñu bari la ñuy njëkk a xalaat mooy état yaag ca kaw ñu jiite déedéet àttewoo lislaam mi ngi tàmbulee ci yow sa bopp ku nekk ci sa bopp fexeel ba lislaam di la àtte fexeel ba ñi nga yilif ñi nekk saroon moo xam sa famille la wala yu mel noonu fexe ba di leen woo ci l'islam fekkee loolu am na rek après euh, euh, ña ñu jiite wala suñu réew ya dina nekk ay état islamique waaye bu fekkee dañuy wër di jéem a euh, indi état waaye ñun suñ bopp atte woowuñ l'islam suñ suñ biir booba état islamique boobu bu ñu ko amee itam du nekk état boo xam ne buy sax la buy dëgër lay doon borom bi waxoon nañu ne fala wa rabbika laa yuminuuna xatta yuxakkimuuna xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum summa laa yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayt wa yusallimu taslima ab juli dëgg fokk ay mbiram yëpp mu koy attewoo ci borom bi di ci dellu ci li nga xam ne moom la borom bi atte mu di ko jëfandikoo loolu mooy tax mu am yar bi nga xam ne mooy yar bu lislaam bi bi bi jaadu beneen bi juróom-benneel bi mbo yi mooy wa تدريب الشاب وتوظيف طاقاته لممارسة الدعوة إلى الله على بصيرة fexe ba xale yi jeunes yi ñu fexe nag ba entraîner leen yar leen ba nga xamante ne dinañ mën a jël mission bu mag bi ca mooy woote jëme ci lislaam àggale ko ci nit ñi parce que mbokk yi lislaam bu fekkente ne amul ñuy woote jëmee ci lislaam boobaa lislaam ba dafay nax saay fokk dafa am ñoo xamante ne ñoo war a taxaw ci jullit ñi di woote te ñooñu xale yi kenn ëpp leen ci solo ñoom fa ñuy mën a àgg ñoo mën a àgg seen moroomu xale yi mën a àgg ca milieu yi ñuy nekk ngir mën leen a jottali euh, wootab lislaam bi bu fekkente nag yaramu leen ci euh, former leen formation bu dëgër bu nga xamante ne dinañ mën a àggale euh, message boobu boobaa benn duñu ko taxawee wala buñu ko taxawee itam nañ koy taxawee du baax dañuy àggale beneen message bu nga xam ne bokkut ak message bi nga xam ne moom la ñu waroon a àggale loolu moo tax kon ñu war a yittewoo ci euh, yar euh, shabab yi ci euh, daawa ilallah ndax ñu man koo taxawe léegi bi ci mujj ci yar diine bi ci laay àgg bala ñuy julli mooy musaadatu shab fi dabti shahawatihi wa maladatihi almaddiya wa taxakkumi fiha maanaam nan la ñuy fexee nag ba yar xale bi ba nga xamante ne ay désiram ay bëgg-bëggam ay ay ay xememteefam ay bànneexam dina mën a fexe ba téye ko ba man koo contrôler ba nga xamante ne du ko euh, du du du saaraan ba koy dugal ci loo xam ne dafa naqari borom bi euh, subhanahu wa taala loolu nag lu ama am solo la bu nga xamante ne nit ki bu ci jéemee yar boppam ñu jéem ko ci yar mën naa dem ba nga xamante ne dina nekk jikko boo xamante ne da koy jikko woo ndax kan mbokk yi euh, li tax ñu wàcce sharia comme ni ko imam Shatibi ne waxee nee na al maqsadu shar'i min wad'i sharia ixraaju almukallaf an daayati hawa xata yakun abdan lillahi ixtiyaaran kama huwa abdun lillahi itiraaran nit li tax ñu wàcce sharia mooy fexe ba génne nit ci bànneexam bi koy woo fexe ba mu bañ a nekk jàmm bànneexam waaye bànneexam ci boppam moom moo koy war a jaamu nit ki waroo fexe ba sa bakkan moo la yilif waaye yow yaa war a yilif sa bakkan not ko ba nga xamante ne fa nga ko jaarloo fa lay jaar loolu nag yombut waaye yar la bu nga xamante ne bu ci nit ki góor góorgóorloo jéem cee yar boppam jéem kem kàttanam boobaa dina ca mën a àgg ndax kat bu fekkente ne euh, euh, mënt àggut ci loolu boobaa dafay demaat ba mel ne bàyyi mayu comme ni mu ko waxee woon léegi moo tax euh, euh, ibnul ibnu euh, ibnu Hazm wax ne id aktaru l asbab allati taxmilu ala isyaani awamir illahi wa nawahi hiya xubbu shahawat furujan wa butunan wa awlaadan wa amwalan wa jahan wa sultaanan wa izalatu dalika al aaiq innama huwa maslakun min masalik sharc li xifd ad din waaw waa loolu du waxoo ibnu Hazm sax waxoo euh, Abdul Majid Najjar la nee na li ëpp ci liy poussé nit ñi ci ñuy mooy borom bi subhanahu wa taala mooy seeni bànneex moo xam lu aju ci sëy la moo xam lu aju ci seeni biir la moo xam lu aju seeni doom la moo xam lu aju seeni alal la moo xam lu aju ci euh, ay poste yu ñu soxla la wala nguur wala yu mel noonu loolu lu baree bare mooy gàllankoor nit ki ba nga xamante ne yarul diine ba waroon nekk ci moom du mën a nekk ci moom kon nag pour man mën a dugal yarub diine bi fokk mu fexe ba mën a taxakkum ci loolu mën a contrôler boppam mën a contrôler bànneexam ba nga xamante ne euh, du ko def loo loo xam ne naqari na ko kon mbokk yi loolu mooy li aju ci euh, yarub euh, diine bu ñu ñëwaatee dinañ wax ci beneen xeetu yar te mooy lu aju ci ak tarbiya al aqliya moom itam yan moyen mooy jàppale nit ki ba nga xamante dinañ mën a yar am xelam buñ ca jógee daal di wax ci tarbiyal axlaaqiya daal di jeexal mooy nan la ñuy yare jikko nit ki yan moyen moo koy jàppale ba mu mën koo yar wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa